pour revenir un peu rek si si mbirum jur bi parce que dama dégg gars yi di wax ni euh, Mame mo derrière etc. ba le directeur des non c'est archi faux il faut que les gens arrêtent nit ki sooy véhiculer ben benn bir dang ko wara xam Mame il n'a fait qu'appuyer les jeunes tay il joue un rôle déterminant dans le parti il joue un rôle déterminant dans la coalition Benno Bokk yakar c'est un intellectuel un brillant intellectuel qui s'est toujours donné au front pour le président de la république mais bu gars yi xalaat bu gars yi suul jëf Mame Boye Diao bokkoon na ci ñi nga xamante au moment où nous ngi di wax ni cogère bu Thiès dee na cogère communal dee mais Mame Boye Diao moo ñëwoon fii def fi panel j'étais là-bas tapis vert mu fees dell mais mu joxe fi xam-xam joxe fi ay orientation indi ay ay support yoo xamante ni permettre nan pour ñu mën a dem ci campagne bi dem na il s'est il est allé plusieurs fois au front dem dem dem dem dem ci télé yi défendre le président de la république aujourd'hui c'est le directeur général des impôts domaine di jël dooleem di ko dugal si parti di investir parti bi kooku pour man dañ ko wara saluer mais waruñu ko jir ay jeunes ay nit ay mag ay adultes ay femmes ñoo am initiative bi pour appeler son excellence monsieur Macky Sall le président de la République si nga xamanteni moy mooy ses réalisations surtout au niveau des réseaux sociaux Nous ñoo doon def sen anniversaire nous na si jaar loolu laa la bëgg expliquer gis nga gis nga gis nga am na benn benn émission bi ma defoon bu yàggul j'ai dit que ni euh, lépp loo xamante ne amul coordination amul méthode c'est voué à l'échec c'est ça le problème mm-hmm. encore que c'est kan lañ doon véritablement si kan lañ waroon jaar pour que coordination bu mën soit si ban leader dans la commune amul aujourd'hui à qui imputer cette faute à qui imputer cette responsabilité surtout au niveau de la commune amul kan lañ ko imputer kan amul kenn koo xamante ni mën nañ ko duut baaraam ni kii kat su affaire bi échec moom la su fekkoon dafay une coordination communale ñëpp jaar foofu noonu kooku diligenté au niveau des des trois communes kon su fekkee am na faille dans la mobilisation parce que kooku su demee bay def coordination bu normale pyramidal dina xam ni war na impliquer les femmes aussi bien les jeunes et cetera et cetera parce que nag bu nu fàtte ni GIR entité la boo xamante ni c'est pas une entité de jeunes c'est une entité qui regroupe aussi bien les jeunes, aussi bien les femmes, aussi bien les, adhérents et les sympathisants dans la coalition c'est la mouvance présidentielle élargie. c'est parce qu'il y a une manque de coordination Il y a un manque de coordination notoire ku nek da nga ñëw ñëw sol ku nek da nga sol sa yére bu rafet ñëw tok point ay responsable de woon xam ne mu lay wax ñoy ku ci defon ni gaay yi ñëw fekk si leen seen nit ñi ëpp na lolu kon ñu fess mais comprendre nous motax ils ont posé un acte ça c'est un signal très fort et je pense que signal bi amna ñu naan président daf ñu ci wara sanctionner non loin s'en faut pour man daf ci wara jangat daf ci wara jangat kat kan population keesuwaas bi kat war naa leen gestuwaat tuuti parce que population bi fimné ni ne nan ñen ñi jaaxle nan président de la République c'est le président de tous les Sénégalais et nous avons été à l'heure de tous les combats yi nga xamante dafa concerner la coalition Benno Bokk Yaakaar kon jot na tay aujourd'hui nombre tànk yu dëgër ñu mën ko fi am yenn yenn poste de responsabilité yu dëgër ñu mën ko fi am pour que le combat continue local yi ñu jëm ñu mën ko gagner c'est important